asalaamaaleykum oustaz Mor Thiam. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu George delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara bi. ajuma tey gi loo ñuy euh, baaxee ci yóbbalu bés bi. waaw George yóbbal bi ñuy baaxee nit ñi mooy loo xamante ni bii nit mën na ko di ko def ci guddi yi mujj ci fukki guddi yi mujj ci weeru koor bi mooy soo naafila ba noppi. fi nga toog bi nga naafila ba noppi nga wax ñaan bi mooy nga ñaan sa boroom mu nangul la sa koor nga dafa dimbale la moom nekk koor gu rafet may la mujj gu rafet bañ la boole ci ñi nga xam ne ci weeru koor bi dañ cee perte dangay wax allahumma inni as'aluka xusna siyaam wa xusna alxitaam ولا تجعلني من الخاسرين في رمضان اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلني من الخاسرين في رمضان فك يمجي قد بنك بونا في لا بنبي ديكونيان بور يالا جورج جيف جيف استاذ مختيام ني ديك داجي alternatives ci beneen yóbbal